particuliers avec les professionnels. Si vous voulez le professionnalisme, le confort, la qualité et la sécurité, venez voir notre agence immobilière Prévision Immo. Wow, cette entreprise est gérée par un jeune travailleur engagé et déterminé au nom de L'agence Prévision Immo est focalisée sur deux domaines, à savoir la transaction immobilière et la promotion immobilière. Pour la transaction immobilière, il y a la location, la vente et l'achat. Concernant la promotion immobilière, l'entreprise sera le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le réalisateur du projet ñun 33 927 43 07 wala nga def 77 890 30 avec l'entreprise prévision immo votre bien au juste prix. waaw man euh, directeur d'école yi ak euh, administration lycée bi avons yi ñooma seet si woon dañu bëgg salle de professeur bi ma équipé leen ñu ne ma lan climatiseur ay frigo ak yooyu directeur d'école yi ndax fi évaluation standardisée la ci ay kayit lañ koy def dañu soxla imprimante ah ma dugg dugg président de la république déglu ma tànqal xam tànqal lu ma jàppale ma ma réalisé, ma millions six yi ko

du suma doole de yàlla moo ma doole yàlla moo ma doole jaare ko ci président Macky Sall moo tax nag ma jàpp ne kenn du ne nee na du ne mu ngi nii ngay ngay jeex Macky Sall dañu joxoñ Amadou lii ma mën ñoom ñooma ci jàpp bon nag nañ fal ma Amadou Ba dès le premier tour pour li nga xam ne ñu gis fii tey bu subaa mu gën di law di ngeen di yaatu di ngeen di neex di ngeen di taal bi nak mom su gis lycée parent de ñu dana ñenti classe yi def fi maak président parent fi nekkoon Mamadou Badiane ak Pierre trésorier ak man ñu bañ ko jëkke ñu dugg di genn ma nekk inspecteur d'académie yalla jàppale ma may ñaanal le ministre Moustapha Souran yalla na yàlla yokk leeram jàppale ma ci ñenti classe yi ma tabax tabax ak bi

buñ limee benn ñaar doo gën ci ñaar wala ñetti doo gis résultat bac bu la bu la am 80 pour cent 69 pour cent am na ko fi baccalauréat ba nag yaakaar na ne war nañ la mun a jàppale ñu tabax ko ndax lycée tabax yu rafet day soññ parents d'élèves day soññ élèves soññ administration ñëpp bëgg cee ñëw di ko xëccoo dafa am solo. matériel yi nga xam ne jot bi dafa jafe. ndax dañu ñëw bi suma kër di mën naa leen jàppale yàlla jàppale ma ba ma mën ko def bon nag nañ ko sàmm toppatoo ndax poussière bi dina bëri tàngoor yi dina ko jàpp surtout imprimante ak ordinateur yi dafa laaj toppatoo entretien di ko muur di éviter nag ñuy wala yu mel noonu. wàllu fii gis ngeen ko. xëy xëy guddi a 3 heures du matin ñu la lakk-lakk na lan moo ko war a lakk fiir courant nangam nag loolu administration def ci war attention ci loolu ñu jàppale ko pour lim xam moom la suñu bëgg ko ci lycée bi yàlla jàppale ko